ñi nga xamni dañu dañu wërit sa borom yëkëti leen ñi nga xamni dañu dañoo néew néew sa borom jox leen kàttan te ñëpp nga nga nga nga ñaanal ñu suñu borom mu saxal ñu ci siratul mustaqim tegg ñu ci yoon yoonu njub te ñun ñëpp nga nga nga ñaanal ñu suñu borom ba ñun ñëpp ñu mëna sax ci benno di di déglu seen digal bàyyi day téré lepp loo ñu digal ñu def ko ci yalla boo ñu gis ci ci ci loy téré loolu dal moy li nga xamni mom la mom moom la mbolo mi mom la mbolo mi sakku ci yow di ñaan nag nga ñaanal nga ñaanal ñu ko suñ borom bu baax a baax sama borom lafal ñu cat te musal ñu ci am ndox musal ñu ci musiba ak balaa te ba nga xam lépp loo xam ne yéene nañ ko liggéeyal suñ Tuubaa suñ Tuubaa rek ñu mën koo ànd ak yow te nga nekk suñ kanam guddi ak bëccëg sama borom may la kattan te ñun ñi sa ginnaaw it ñu ñu am ñu am doole doole lépp loo joxañ rek ñu mën koo def loolu laal mooy li nga xam mom la mbooloo mi woon naa fi jot li ci dëng nak ci man la lu ci jub nañ ko sant suñu borom tabarak wa taala mbokki julit yi mbokki talibe yi. señ bi neena mbokki jullit mbokki yi. ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant. señ bi ne kenn ku ne ñu ngi lay nuyu ci sa tour ak sa sant. Euh, di leen sant ci taxaway bu rafet bi di leen sant ci taxaway bu rafet bi nga xamne xamna ñu jëm mi Cheikh Moustapha rek mo wara jotay bi nga xamna ni xam ngeen ni mi Cheikh Modou rek mo wara jotay bi kon xel man na dal bu baax ci seen pastef ak seen yitte kon xel man na dal bu baax ci seen pastef ak seen yitte ndax kat nañu waxtaan yépp mi ngi jëm rek ci gëna a suñu bopp rek neena na waxtaan wi yépp mi ngi jëm ci gëna a suñu bopp rek gën leena a ci li nga xam ne la sëriñ bi digle gën leena a ci li nga xamante ni moom la sëriñ bi digle muy jaamu yàlla ak liggéey muy jaamu yàlla ak liggéey ndax moom kat moo njëkk wane yoon wi ndax moom kat moo njëkk wane yoon wi ndax sëñ tuba ndax sëriñ tuba mi nga xam ne moo waral lépp mi nga xam ni moo waral lépp fa mu jaar boromam ba agsi ci mbiram nëbbootut ndax ndax yëkkatiku ko suñu borom yëkkati ndax fa mu jaar ak boromam ba mbiram yëkkatiku ca kaw ba wër aduna ñëpp xam ni mbiram eh, eh, eh, ak yëkkatikoom ma nga ci kaw sëñ tuba waral lépp foofu rek lañu joxoñ sëñ bi foofu rek lañu joxoñ moom سيدنا توبا ميغي واخ في مو في مو جار ميغي واخ با واخ لم يتردد كالكلي ولم يمل جسمي الى معصيه ولم امل واخ واخ ني مسلا موي بروموم تي لن نينا سيدنا توبا واخ ناني مسا موي بروموم تي لن كون نانو خامني سيدنا بي فوف لا ني جوخني كون نانو خامني سيدنا بي فوف ريك لا ني جوخني سونو خيب واك سونو ماتا دي ناك دا نا تاخ با خينا لول دو يومبا جوبلو نينا سونو ماتا دي اك سونو وايف اك سونو دوي دي ريك taxna na lepp duñ ko mën matal waye nak li am solo moy jublu señ bi tamuy dëgg ci ñun waye li am solo moy jublu señ bi ca muy dëgg ci ñun jeexal suñu lepp ci bëgg señ Touba ak liggéeyal ko tayal rek tax jeexal suñu lepp ci bëgg señ Touba ak liggéeyal ko Yalla rek ci Yalla rek tax bëggante te yenente jam bëggante ci yenente jam ndax señ bi kat meñ ñuy wax te dañu tektal wax li mu wax ne ab murit kat ndax murit ci boppam lan waru koo tax a jóg lu dut euh, dabu dut sëñ bi. ndax sëriñ bi nee na ab murit lenn wërta doon mbégam lu may dabu mbégum sëriñ bi rek moo moo war murit. fexe ba sëriñ bi boole ñu ci ay nitam mooy li am njariñ. fexe ba sëriñ bi boole ñu ci ay nitam mooy li am njariñ. te wax na ay nitam nan lañuy war a mel wax na ko. wax na ay nitamit nañu war a mel sëñ bi wax na ko. Euh, kon nañu góor góorlu ci loolu. kon nañu góor góorgóorlu ci loolu. sëriñ Touba kat mi ngi wax ne. Serigne Touba kat mi ngi wax ni. suñu borom tegtal na ci man lépp luy lu rafet ak képp kuy aj rafetal ku góor ak ku jigéen. Serigne Touba nee na yàlla tegtal na ci moom kuy rafetal góor ku rafet rafetal ak kuy rafetal góor ak jigéen. أنا رد إلي الله كل مصلحة وكل مصلح وكل مصلحة سن برام تكتل نما كيب لب لي رفت كيب كوي كرفتال كنا نفخ ببوك تيني تسرين توا نينا سرين توا نينا سن برام تكتل نا كيب كوي رفتال أكو بد رفتال يلا تكتل نكو سرين توا كنا نفخ ب فخ برفتال نحن ببوك توا كسرين توا فخ بجنت ينن تجمع تدي سنن تجيك طالبه fexe bëggante ci yéenante jàmm ci soññente ci ak talubé ndax loolu rek moy li am njëriñ te mo mën tax ñu am ngërëmal sëñ bi ndax loolu rek li am njëriñ te mo tax moy tax ñu mëna a am ngërñu ngërëmul sëñ bi ndax sëñ bi néna kat képp ku jublu leneen luddut loolu koku bokul ci mom radda li ghayri allah kull mufsida كل مفسد وكل مفسد وكل مفسد كيف كوغا képp كات دا فاي ne ولا موي xàjjale جيرو صاح لن jaru كوكو موم بوكل تي sëñ bi sëñ bi moo ko waxal boppam. nee na sëriñ bee waxal boppam ne képp koo xamante ne da ngay yàq mbaa ngay jaxase mbaa ngay boole sëriñ bi nee na kookee bokkul ci ñoñom de sëriñ bi ku jub ku jubal mooy bokk ci ñoñom. kon nanu xam ne suñu tànk war ñu ko teg ci lu du fudul ci jaamu yàlla bëggante te yàlla rek tax di soññante ci taalibe. nee na kon suñuy tànk waruñu koo teg ci lenn lu may jaamu yàlla di soññante ci taalibe ca bëggante. loolu loolu rek mooy maa tax ñu am ngërëmal sëñ bi nga xam ne loolu moo ñu amal njëriñ àddina ak alaxira loolu rek tax ñu mën a am ngëriñu ngërëmul sëriñ bi àdduna ak alaxira kon kàddu yi foofu rek la jëmoon sëñ bi nee na kàddu yi de foofu rek la jëmoon ndax yéene ñu jàmm ak aw yiw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bi di ñaan sëriñ bi defal ñu suñu borom defal ñu ñu dégg sëriñ Tuubaa te jublu ko nim nim ko bëggee ci ñun sëriñ bi nee na loolu rek mooy kàddu yi nee na ñu ngi ñaan yàlla muy suñu buur di suñu boroom mu jubal ñu tegtal ñu sëriñ bi ba ñu dégg sëriñ bi ba ba sëriñ bi ñu mën a jëriñu sëriñ bi tey ak ëllëg. te it ñëpp ñi nga xam ne xëy na comme li sëriñ bi doon wax sànq ñi nga xam ne bokkoon nañ fii wala bokkuñu fii dem nañ ñëpp rek lu mën a xew nañu xam rek ne fi ñu war a teg suñu tànk mooy ci way way ci lu baax ndax loolu rek mooy tax a jëriñu. nee na nga xamante ne bi doon wax léegi kii nekkoon na fee ak nekkoon na fii amul solo li am solo ñu teg suñu tànk ci lu baax rek ca sax ci lu baax. sax ci ci wet ak ci wetaliku. ñu wet ak ñu wetaliku sax ci lu baax moo ñu war bu ñu wetee bu ñu wetalikoo it sax ci lu rek moo ñu war. ndax feeñoon na ci lislaam ci taarixu lislaam xare yoo xam ne ñi feete woon sax ci jullit yi ñu néew lañ ci ñi nga xam ne ñoo feete woon ci di leen xeex te teewut jullit yi ñoo am ndam ci seen kaw pas-pas bu sell rek yitte ju kawe rek mu maye loolu. ndax nee na ca lislaam ji. amna ci xara yo xamanteni lu neew lañu won yeufar ji de lu bari waye postaf pastef ak jom rek tax julit yi gagné xare yooyee kon ku bokk ci mbolo mek ku ci bokkul amu solo li am solo moy ni ki nga xamne mo djublu lu bax mo am ak dogu gu mat seuk kon neena ki ci mbolo mi la bokk ki mbokk bokkul ci mbolo mi amul solo li am solo dal ni djublu ci lu bax taxaw ci lu bax waaw ngi sante ñep di gërem ñep sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp cay gërëm ñëpp. di ñaan màggal gii suñu borom def ñu àgg ci jàmm jeexal ko ci jàmm te am ci ngërëm. nee na màggal gi yàlla nañ ko jeexal ci jàmm jeexal ko ci ci digal yàlla ma ñu ci jàmm yàlla defal ñu ci jàmm ak sutura. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah. Eh, sëñ Mohamed jërëjëf wax ji mënu woon a ñàkk jërëjëf jërëjëf. yal na taxawaay bi yàgg lool wax bii nga ma ja wax dama fàttali wax bu seex Abdoul Fatah Mbacké waxoon bañ koy wax kii kii ci yow la jébbi ku man kii jébbalu ci man kii jébbalu ci man ñëpp laa yemale li ma bëgg mooy képp ku dib judit am jàmm billaahi ku dib judit la wax am jàmm ceet boo xoolee tuuru daayira bi xam ni tuuru jullit yépp la seigne Abdou Fatah musta distingué julit ak tidiane ki mut seigne Abdou Fatah ab julit ko ñor na seigne don don seigne Cheikh don joxe ku ko xam-xam gu ne seigne Cheikh seigne Abdou Fatah bo xoolee tidiane yee ya ko gëna bëgg xalaayen yee ya ko gëna bëgg khadir yee ya ko bëgg na bëgg ñaseen ya ko gëna bëgg ca kenn ku nekk ci kër gi it nga ci sa bëtt ndax gis nga magali ni ñu daan ñëwé kon Cheikh Abdou Fatah ci la don dox ñi ci lañu fasiyene tek seen nañu ko xam ñun ñep ci barke Cheikh Abdou Fatah